Abdoulaye Wade addu ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr njiital parti démocratique sénégalais ni Ousmane Sonko dañ ko lalal ak ndëgg sërëx goo xam ne ni ñàkk expérience am tax na mu daanu ca euh, ci ab communiqué la ko biral. la euh, février ñu dikk ci xibaar yi la wàcc ko boole kook texte bi ñu leen indil mu jóge ci euh, njiitul parti démocratique sénégalais muy maître Abdoulaye Wade. moom àdduna ci mbirum Ousmane Sonko li mu xam ne nag nee na Ousmane Sonko dañ ko lal ak ndëgg sërëx piégé ko euh, jaarale ko ci ay faiblesse am ba tax mu daanu ci ndëgg sërëx googule neen nag loolu li ko waral rek mooy euh, daanaka manqué expérience am moom moo ko waral waaye moom Maître Abdoulaye Wade mi ngi ñaawlu bu baax a baax a baax lii nga xam ne dañ koy def euh, ngir jublu ci rek éliminer ay adversaire politique maître Abdoulaye Wade dooli waat na tamit wax ne eh, pour dindi mbalaanum kiir laay foofa ci assemblée nationale ñoom waa PDS dañuy opposé wu maanaam daal ànduñu ci benn yoon loolu la jotoo xamle moom maître Abdoulaye Wade xam naa des na toppandi xibaar yi ak lenn li koy accompagner ak ay mu nekkoon seen mbokk sa xarit pour Babsa Info. ngeen jot suñu vidéo wala si bitim di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen a xam